بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين nuy sant sunu boroom subhanahu wa taala di ko bàkk di ko kañ ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ tey ci suñu ñeenteelu bind ci tomb bi nga xam ne mooy kayfa nu rabbi awlaadana naka la nuy yaree suñuy doom jàpp naa ni tomb bii day mbokk yi tomb la bu xam ni ñun ñëpp am nañ ci aajo moo xam ab jàngalekat nga moo xam doo jàngalekat moo xam yaay nga moo xam baay nga ku mën a doon ci ñi nga xam ne sunu borom dénk na leen ci sa lëf ci xeeti kilifteef yëg nañ ni tomb bi kat danoo aajowoo ay jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy yaree ndax yarkat dafa jafe te jumtukaay yi nga xamante ni mooy tax ñu mën a yar mi ngi fi kon mu jaadu ci jàngalekat yi ci seen ak jottali ak seen ak leeral jumtukaay yi nga xam ne mooy jumtukaay yar su ko defee ki nga xam ne borom bi baaxee na ko subhaanahu wa taala ak njaboot mu mën a yar njaboot ga ki nga xam ne sunu borom daf koo baaxee ay taalibe ay ndongo mu mën leen a yar ki nga xam ne yàlla da ko na toon yooyu yépp sax amu ca waaye amaan na sunu borom dénk na ko ku nekk ci doon kilifteefam mu man koo yar kon su ngeen fàttalikoo ci sunu ñetti bind yi weesu benn bu ca nekk am njàng am na njàng mu am solo mu ca ne ci wàllu tarbiya jàpp naa ni sunu borom bi defalee tawfiq ba yoon woowa ñu xotti ñu man koo topp jëm ca buntab yar ah borom bi day bu nu defalee ndimbal moomu ak jooyanteku gu mag dana am ci njàmbat gi nga xam ne dañ koy jàmbat ci gone yi tey dinaa wax ni gone yi ci seen jëmmi bopp ñoom amulub yar kon dañ ko war a def ci ñoom xamuñu dañ leen a war a xamal waaye ñoom du ñoom ñoo mën a jubbanti seen bopp kon dañ leen di jubbanti kon yi ay jumtukaay la yoo xam ni dees koy jëfandikoo ngir mën a yar ak njoboot ngir mën a yar ay ndongo waaye ngir mën a yar képp koo xam ne borom bi def na ko ci sa ron kilifteef soo gisee ñu njëkk ña ñu gënoon ñoo réussir ci wàllu yar dëgg la moyen ya leen suñu borom joxoon ak sellaay ak jamono ja yooyu yëpp amut tey waaye nag la doon defar nit ñi ba tey mi ngi fi jumtukaay yéen daan jëfandikoo pour mën a defaru ba tey soppikuwut yooyu la ñuy jëfandikoo pour mën a defaru kon tey mooy ñeenteelu bind bi te maa ngi yaakaar suba dana nekkaat juróomeelu bind bi bu yeggut ginnaaw suba doog a nekk juróom-benneelu bind bi mu doog a jeex ndax tey maa ngi koy def ci wa min asaalibi tarbiya maa yali bokk na ci jumtukaay yi nga xam ni yarkat dina ko jëfandikoo pour yar yii di bëgg a ñëw te des na bokk na ci jumtukaay yi nga xam ni yarkat bu ko jëfandikoo loola day yàq yar te desaat na ba léegi yan qualité la yarkat bi war a mën a yor pour am réussite ci li nga xamante ni mooy ak yaram kon yooyu jàpp naa ni benn bu ci nekk tomb la bu am solo dooleeku ca la jàlloon tomb ak tey bi ñu ngi koy def ci wamin asalibi tarbiya bi ci njëkk mooy kasratu l ictimaadi ala almaxsuusaati duna gayrihi bokk na ci jumtukaay yi nga xam ni yarkat da koy jëfandikoo mooy di sukkandiku ci mbir yi nga xam ni mënees na koo làmb daj walis mbir yoo xamante ni xale bi dafay xalaat ba sonn doog koy am loolu mooy lan mooy yarkat yu bari moo xam bàyyi la ci ay doomam moo xam jàngalekat la ci ay ndongoom moo xam ku mën a doon léeg-léeg dañuy faral di jëfandikoo jumtukaay yoo xam ni maanaam pour yar ci xale day jafe lu mel nan lu mel ni di ko wax loo xam ne am xelam yeggu ca gone day toll foo xam ni ay mbirum àjjanaak ay mbirum sawaraak ay mbirum njéggim siraat ak ay mbirum numturati waa laaraaf ak yooya gone day toll foo xam ni cib yar boo ko bëggee jubbanti du yooyu ngay jël misaal déedéet ndax gone xamut loolu waaw gone ci am na aas bu muy toll ay sawaraak ay àjjanaak ay óorul iin ak ay yube ne demee noonu xale xamut loolu même historiens yi sax am nañ ay téere yu ñu taalif ci qisasul anbiya lil atfal qisas sahaba lil atfal nga xam ne dañuy wàcce niveau bi ba mu faible xale bi li nga koy wax mën koo dégg kon almahsusaat mooy mbir yi nga xam dañ koy mën a laal di ko gis hey gis nga diw bi mu defee nangam gis nga li ko dal xoolal li ko dal mu nekk misaal boo xam ne xale bi teg na ci bëtam maanaam gone gi kon jamono bi nga koy yar yi mën a teg bëtam mooy ëpp jeexintal ka yi nga xam ne mënu caa teg bëtam su ko defee nag léeg-léeg jumtukaay boobu dañ ciy faral di juum te buñ jàngoon xaatibu naasa ala xasabi uqulihi mooy booy def discours ak nit ñi seetal nit ñi ñi ngay waxal seen xel fu mu toll nga waxee ak ñoom foofa su ko defee mbir yi nga xam dañ koy mën a laal ak mbir yi nga xam ni boo ko waxee gone gi comprendre parce que léeg-léeg mën ngaa wax ba yeggal mag mi sax du xam li nga wax lan la kon gone gi taxut di wax jàpp naa ni ki ngay yar te li li ngay wax mu xamu ko kooku moom sab yar ak moom mën naa xaw a yeex a yegg fa nga bëgg mu yegg fa kon dafa jaadu aji yar bi muy jëfandikoo ay jumtukaay yu mën a laal ah xale bi bu defee lu jar neexal nga neexal ko ba noppi ni ko ah gis nga de yàlla de moom bu àllaaxira nii lay def nii muy def nii maanaam di ko jox ay misaal muy gis ndax kasratul amsal dafa bokk li nga xam mooy taqrib mooy indi li ñuy tuddee taqribul maani mooy maanaam mi nga bëgg a jox gone gi pour mu dégg ko nga joxe benn exemple su ko defee boo gisee xale yi bu ñu leen di jàngal ñu leen ci permettre ay cahier yoo xam day am ay dessin waxuma ay dessin yi nit bi bon yi ñuy dessin déedéet ay dessin nga xam ne bu ñuy jàng nun ñoo ngi fàttaliku bi ñuy nekk gone téere yéen doon jàngee luxa ba fii ma toog di wax dafa mel ni dafay kolewu ci sa xel mi ah téere yu mel ni attilaawatul arabiya nga xam ne am na un deux trois quatre ba cinq ba six téere yu mel ni iqra nga xam ne am na un ak deux insha sahih nga xam ne un am na un deux trois quatre ba cinq image yooyu ñu ci doon gis bi ñuy nekk gone nga xam ne ci misaal dañuy joxe benn waay ñu ne ah école ubbi na soo demee ci tilaawatul arabiya numéro deux ba ma nga titre ba ca njëkk te booba lañ ko mokkaloon ba tey kat mi ngi tuddoon odna ilal madrasati dellu si nañ école tijji na xam nga xale bu école tijji day nekk événement bu rëy a rëy ci moom du ko fàtte parce que kii nga jóge kaw ga kii jóge dëkk sàngam kenn ku nekk fa mu jóge gis nga loolu boo koy jàng fi ne dafay kolewu ci sa xel mi xaw tuuti kon xaw tuuti kon ma ni leen bind boobu mën naa koo tari te baa nekkee gone laa ko mokkaloon ba tey lu waral loolu parce que loolu mooy gën a def jeexintal ci yow dellu si nañ ci école bi daje nag suñuy morom ñi ngi taxaw ci ëtt bi kee ngay nuyoog say morom kee ngay image yooyu ñuy def xale bi di ko gis kooku day am jeexintal yu muy def ci gone gi boo jëlee téere bu mel ni iqra xale dafa bëgg jaww ji mu nekk nga génn ko ci léeg-léeg mu dem feneen iqra am na ci numéro 2 bi benn bunt boo xam ni xale yi dañoo demoon lu mel ni xama colonie de vacances lañ koy tuddee wala benn seen journée yooyu ñuy dem xamatuma noonu koy tuddee sax jékki-jékki rek dem visite fenn nga gis gone yi daal di jóge ci kaw ga dem ca fa nga xam moo amuk tefes bu doon ñu nekkoon ca taax yaa fa amuk tefes mu jóge leen yóbbu leen ca kaw ga yooyu nga xam ne xale bi da koy mën a comprendre yooya moo gën a gaaw ci asaali bu tarbiya moo tax boo seetloo gone buñ koy jàngal ñuy jël téere yoo xam ne ay image wala di koy taqrib al maani di wax ay yëf yoo xam da koy mën a comprendre kon kasratul i'timadi ala al mahsusat duna ghayrihi di jëfandikoo mbir yi nga xam mënees na koo laal mooy gën ngay jëfandikoo mbir yoo xam day xóot ba gone gi du ko mën a comprendre ñaareelu tomb bi ci asalib yi ci jumtukaay yi nga xam ne yarkat da koy jëfandikoo mooy at tarbiyatu bil qisas al haqiqiya mooy nag ngay yar nit ki ci di ko jox ay histoire nag di nettali waaye nettali yoo xamante ne waxuñu lépp soo gisee ma tudd ci baatub haqiqiya mooy mag ñi ñu bari doon nañ yaree xale yi ci uslubu lépp lépp lu am solo la waaye ci kaw na fekk nit ki li muy wax dëgg la ay léeboon amoon na fi ndaanaan nga daal di créer sa benn affaire boo xamante ni amaan na création lay doon wala buñ ko créer wu timit amul benn njariñ ñu koy nettali xale yi loolu kenn du ko def dëgg la lépp mën naa am même bu doon uslubu lépp nga ko jëfandikoo waaye na nekk dëgg ndax xadiisu umm zarra mi ngi tolloog lépp ci kaw bu fekkee lépp tënk nañ ko ci xam nga buñ ni lépp rek nga ne dafa xaraam déedéet nañ ko tënk ci xawaayid yi nga xam ne lislaam da koy bëgg li ñuy wax na nekk dëgg bu mu nekk ay nar mooy yàlla ba mu ci am digal lu baax na ci am xadiisu umm zarra mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon lu doxoon digganteem ak Aïcha radiyallahu anha Aïcha nettali ko ko wala am ñu ne yonent bi nettali ko ko Aïcha nettali ko mooy li gën a dëgër nettali ko xadiis Ummu Zara mooy benn jigéen joo xamante ni dafa amoon jëkkër jëkkër ji tudd Abu Zara moom mu tudd Ummu Zara mbir yu kéem affaire bu kéemtaane maanaam xissa boo xam wax dëgg yàlla dafa gudd lool waaye am njàngale mu rëy rëy ma nga ca ba mbir may yegg fa mu jeexee mooy jëkkër ji mas wàcc na soxna si yonent bi ni ko yaay abu zara maay ummu zara aïcha ni maay ummu zara yonent bi yaay abu zara waaye man nag duma la wàcc gis nga su ko defee foofu am njàngal la tax aïcha du woon mag booba nag bu leen fàtte nag gone la woon ndax bi ñu koy joxe yonent bi alayhi salaam mi ngi am juróom-ñeenti at kon di nettali ay qisas dafa am solo trop na xam ngeen ni al uslubul qasas yi comme ni ma ko waxee ci duruus yi uslub bu garaaw la ci wàllu yaram gis nga nettali doomu aadama su génnoon fii di dem ba mu yàgg mu romb ñaari nit wala benn góor bu taxaw di rencontré benn histoire loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti da nga ciy def sam xel amaan na sax boo xawee wayee di tut da nga taxaw nga déglu lu ko waral mooy nettali ci boppam uslub la boo xam ne jazaba dafay xëcc xol jekki-jekki ba mu yàgg seet benn événement am rek nga profité ci nettali xale yi benn histoire boo xamante ni day méngoog li am loola day tax ñu mën a jàpp saxaaba yaag asxaabul uxduud ak gone ga nga xamante ni moo waxoon yaayam lam ko waxoon yooyu tamit yu ma ta am solo parce que ay gone la yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam benn jigéen daa mas a boot doomam di dem ak moom ba mu yàgg mu romb benn waay bu rafet waajoo xam ni mi ngi sol benn mantu di di réeku di fëccëx fëccëxi ah yaay ji daal ni ay sama doom ji su màggoon ba mel nii xale bi ni ko yàlla bul ma def nii de bëgguma lii de man te gone gaa ngi nàmp de xale buy nàmp yonent bi boole ko ci gone yi wax gone gi ni yàlla bu ma mel ni waajooju yaa ji ni muy yéen liir muy wax affaire bi jaaxal ko lool waaye mu continué dem ba mu yàgg mu rombaat ci mbedd mi benn xale bu jigéen boo xam ne dañ koo tiim di ko dóor dóor yu metti sax te jéggi dayo yaay ji daal ni hii sama doom ji de yàlla bu mel ni kii doom ji ni ahan kay yàlla kay bu ma màggee yàlla nag ma def ma mel ni kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di nettali mu ni këñ njëkk a romb ba xale bi naan yàlla bu ma mel ni moom te kenn ne mu ni ab buur la woon buur bu bew te saay saay day jékki-jékki rek génn di décorer ci kaw nit ñi xale bi daal di ñaan yàlla bu mel noonu loolu yàlla moo ko xamal. nee na jigéen jiñ romboon ñu di ko dóor ndaw si boobu ab mbindaan la woon ci kër nee na mbindaan mi dañ kaa jiiñ ak càcc te mbindaan mi sàccut waaye mbindaan ma ku baax la woon xale bi daal ni yàlla naa mel ni moom xam nga misaal yu mel noonu. di taqrib li nga xamante ni mooy maani yi loolu lu am solo la rawatina keroog Uhud ñaari xale yi xale yi nga xamante ni rayoon nañ kenn ca kàngami yéefar ya yonent saa salaam woo leen di leen laaj waaw kii nan maa ko rey kii nan maa ko rey yonent bi naa waa kan moo ko rey woo leen waa indi leen seeni jaasi ma xool maanaam yu mel noonu mu nekk loo xam dafay tond wàcc ba tolloog xale bi nga génn ci ay njàngale lu mel nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu yónnee anas yaayu anas ni ko lu la yonent bi yónni mu ne ko ah da ngaa bëgg ma wax la secret yonent bi yooyu xale bi daal di ciy jàngaay ndeke nekk gone teewut nga mën a garder secret yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na fekk benn waaye defaral ko ay dàllam benn gone xale bu ndaw mu defaral ko ay dàllam letal ko socc bi defal ko lii defal ko la mu ni waaw ah ku def lii foofu nag xadis ba bàyyi la ay riwaayaat la ñëwee li leen nga dégg ñu nettali li leen nga dégg ñu nettalee ko ne ay riwaayaat la benn bi Abdullah ibn Abbas la dal boobu laa soxla tey bi bi bi mu ñëwee ñu ne ko ku def lii mu ne Abdullah ibn Abbas moo ko def yonent bi daal di koy ñaanal yàlla mu ne allahumma faqihu fi diin wa allimhu ta'wil léegi nga ne ko ne ah gis nga ne Abdullah ibn Abbas gone gu ndaw la woon waaye toppatoo na yonent ba yonent bi kontaan ci moom ndax yonent bi borom xam-xam la ba mu kontaanee ci moom mu jël loxoom teg ko ci kaw bopp xale bi daal di koy wax yàlla na la yàlla may nga dégg diine te it nag may la firim alquran loolu lu am solo la su ko defee muy asalib yoo xam ni yaay ji tamit xam nga yaay su fekkente ni mën naa yar day xam jumtukaay yi mu yaree su ko defee mu daal di nettali yooyu wa illa jàngalekat di ko nettali wa illa yarkat bi di ko nettali kon at tarbiyatu bil qisas al haqiqiya loolu lu am solo la mooy di nettali di nettali xale bi di dégg su ko defee yi muy dégg dana ca mën a jariñu ñetteel bi bokk na ca at tarbiyatu bil qudwa mooy yar ci wàllu fexe ba xale bi am ku muy roy xale bi da am ku muy roy te ki gën a yey ci ñu roy ko kan la ki ki kan moo gën a jege xale bi pour mu roy ko yaayam baayam yaayam baayam ñetteel bi hmm yaay jeeg baay ji ak kan sëriñ bi koy jàngal xale bi ñett ñi ñooy ñi nga xam ne keneen kuy yar si da ngaa wàll si yaan rek waaye ñett ñi ñooy ñoo xam kenn wàll si waanut moom yaay ji wala baay ji wala ka nga xamante ni mooy jàngalekat bi kooku nag bu nekkut modèle yaay ji bu nekkut modèle baay ji nekkut modèle wala jàngalekat bi ñu jël xale bi jox ko nekkut modèle su boobaa yar bi du sotti moo tax dañoo bëgg nit ki di yar xale bi ci mu am xut xudwa defe naa leeraloon naa ko ca la sëriñ ba doon wax waaja doon buur ba doon wax sëriñ ba da nga fexe bala ngaa defar gone yi defaral sa bopp ndax li nga rafetal moom la ñu rafetal li nga ñaawal moom la imam ibn al jawzi rahimahullah imam bu mag la te mën a jàngale dafa am benn téere bu mu taalib bu am solo tuddee ko saydul xaatir boo demee ci téere boobu dani dafa jaadu ki nga xam ni moo tiim xale bi bëgg koo yar mu yor ci ay rafet rafet ak i mbaax mbaax ak i jumtukaay bàyyi la wala ku mën a doon loo xam ni xale bi da koy xool mu yéem ko ndax xale dafa de xale am na xel de gis nga fi ne bu fekkee da ngaa jàpp ni yi ngay def ci kanamu xale yi xale yi xamuñu toogal fii rek surtout xale yi léegi léegi lañ gën a yeewu Ibn Jawzi nee na bi mu nekkee gone nee na daje naag ay sëriñ yu bari jàng ci ñoom nee na sëriñ yi sax wuute nañ xam-xam nag ñii seen xam-xam day bari ñii seen xam-xam néew waaye mu ni man seetlu naa bi ma nekkee gone sëriñ si nga xam ne ñoo ëpp luñ doon jëfe ñoo ma gënoon a marqué ci sëriñ si nga xam daawuñ jëfe xoolal moom borom xam-xam la mooy nettali waaye li muy nettali jamonoy ndaw la woon nee na dama seetlu ay sëriñ soo xam ne ñoom ah daanaka faw ñu am ay intérêt doo ko joxe xam-xam wala ñu jàngale bu ñu amul intérêt duñ ko joxe mu ni loolu ma di ko gis nee na am na ñoo xamante ni damaa seetlu woon ni léeg-léeg dinaa leen gis ñu jooy mu wóor ma ni kii magum jëmm la kenn dóoru ko mu ne loolu daf daan am lu mu daan même bu ma jooyut sax man dafay def am lu muy def ci sama xol bi. nee na seetlu naa ay sëriñ ku mel ni Abdul Wahab al-Admati yi nee na ci sëriñ yi ma gënoon a marqué bi ma nekkee gone la ñu ne ko lu tax mu ne moom kaana ala qanuni salaf moom bi ma màggee ba jàng salaf. ne damaa comparé ma ni ha kon ndekete Abdul Wahab al Anmaati lii la doon dund te man comprendre ma ko mu ne ci laa xam ne kon ci manhaju salaf la nekkoon nee na seetlu naa ne moom daawul jëw ci ab jataayam seetlu naa ne tamit daawul jàngale di wut ay intérêt da doon jàngale ngir yàlla nettali ay sëriñ yu bare bare bare wax na ci ay wax yu bare bare yoo xam ne yu gudd la ci téere boobu maanaam loola la muy wane mooy kon gone gi ki koy jàngal nekk ci kanamam na ko yéem. na ko yéem nag mu àgg ci martaba bu mu jàpp ni moom la comme ni ko ñeneen ji def def ko taqdis wala yu demee noonu waaye nag war naa am ab jeexintal bu mu def ci moom loolu nag moo doon am bu njëkk bu njëkk cheikh bi dara nekk ko am xëy ba xëy ba mooy ak wegeel ndongale day wekk sëriñ bi lu tax parce que gis na sëñ bi dafa bari lu muy woor gis na sëñ bi day julli guddi gis na sëñ bi dafa da jàng alquran yow koo xam ne yaa ngi yar gane gi ci deel jàng alquran te gisula ngay jàng alquran xoolal bàyyi ak yaay joo xam ne yaa ngi soññu xale bi pour muy jàng te yow jàngoo xale bi daw li ma li may faral di wax mbokk yi léeg-léeg sa doom nga yamal ko mu daw jàng mu ñëw nga dóor ko bëgg a dee te yow na nga woo jàng gis nga sa doom nga sàmm ko dama julli ji dama jàkk ji nga julli ji mu gis la yow nga jullee ci biir néeg bi te feebaroo dara dawul même xale bi est ce que xam nga ni su fekkee da ngaa feebar da nga kaa war a wax damaa feebar moo tax déglu ma jàkk ja xam nga xale bi moom xamul luñ ko expliqué wu leen xamul bokk na ci jumtukaay yi nga xamante ni kon yaay ji wala baay ji wala yarkat da koy jëfandikoo mooy xale bi li nga koy digal ci lu baax mu gis nga di ko def del sarxe del nangam léeg-léeg mu gis la nga sarxe bal dafa bokk ci uslub yi sax ci defar gi mooy léeg-léeg sarax bi teg ko ci kanam xal loxo xale bi di ko demal saraxe loolu lu am solo ngoo ah bu xale boo xamee ne ah bu ko joxee ba pare nga ne ko xam nga lu tax ma jox la ñaar téeméer yi nga jox ko bàyyi diw mu ni déedéet nga ne ko gis nga yàlla moo ñu wërsëgal ñun ñi ngi añ ñi ngi reer ñi ngi dékk démb añ nga mu ne waaw démb rek xam nga waxin woowu xam nga dafa xaw a oyof tond ci xale bi waaye mag nga kii xale la xaw nga wàcce dimension bi ngay waxee démb añ nga mu ni waaw reer nga mu ni waaw ndékki nga mu ni waaw mu ni amaan na boo demee kii añut reerut ndékkiwut gis nga léegi yàlla wërsëgal na ñun añ nañ joxe nañ dépense ba desal nangam léegi nag lii gis nga bu ñu ko yëkkatee jox ko ko bu ëllëgee àllaaxira yàlla fay ñu wax bu ko defee xale bi xam kon geste bi nga ko tamal moo tax newoon naa leen ahmad ibn hanbal nee na saalex saalex nee na sunu bàyyi su musaana am gan gu foor léeg-léeg dañ koy gunge ba ci bunt bi rek mu ne ah saalex yaag abdallah kaay leen gungeel ma gan gi ba taliba ci misaal ana gone gune gone moo war a gunge gan wala mag maga war a gunge gan nee na bi ñu màggee ci lañ doog a xam ne ndekete ah sunu baay dafa xamoon ni xale dafay seetlu te xam ngeen ni gan bu ñëwee nekk gan gu baax gan gu ragal yàlla dafay def jeexintal ci gone gi mu di ko xool su ko defee nee na bu ñuy gunge gan gi gan gi di waxtaan ak ñun ñu di ko xool xool tubay ji tubay ji bu buut ñu xool tànk yi xool nangam xool bu ko yooyu day marqué xale bi imaamu shafii rahimahullah imam ahmad da ko fonkoon lool lool ba jéggi dayoo ndeke imam ahmad mi ngi am benn doom bu jigéen ci kër gi bis bu nekk rek day dégg bàyyi ci nan shafii shafii shafii xam nga léeg-léeg boo yàggee dégg tur bu yàggee affaire day ngand ci yow ba nee na ndaw si xale bi gone gu ndaw rek gone gu jigéen ne mu yàkkamti naa gis kan mooy shafii ci àddina ndax man gis naa sama bàyyi ni mu koy tuddee far benn bis rek shafii ni janeet gane si kër ahmad fekk xale bi daana ko dégg ah nee na bi loolu amee ndaw si nee na moom jour boobu amut lu mu def lu dul rek di topp saafee di ko xool waaw kii malaaka la wala nit la wala lu mu mën a doon jinne la sama bàyyi ni mu koy tuddee nee na reer daal di jot ñu yàkkal saafee ay reer mu ne saafee lekk bool ba mu jeex xale bi daal di wax ci xelam daal di ah kii man maa ngi foogoon sa waay nangam nangam moom reer bi desalul dara xam nga xale loolu da koy marqué mu bàyyi ñu toog ba guddi jot xale bi nee na man nelawu ma maa ngi ba comme sunu néeg yi ñoo dendee maa ngi bàyyi xel saafee fi mu fanaan mu ni man seetlu naa ni sadala gi ñu ko tegaloon ba ba bu fajar jot jugut guddi gisuma ko mu julli li kan gi demee wala bi ñu yeewoo doom ji jigéen ñi daal di ñëw ci Ahmad ibnu Hanbal daal ne ko bàyyi daal dëgg-dëgg man saafee mii ngay wax daal man nim ma yéemee woon man gisuma dara ci moom lu ma yéem kii moom gis nga démb lekk na reer reer reer ba mu jeex guddi gi gisuma ko mu def ay jaamu yàlla julli kon moom mooy bàyyi ji ne ko nañ ko ko laaj biñ ko ko laajee waaw xale bi de nee na yaa biig moom dafa seetlu ne bi ñuy reer reer nga ba mu jeex wax ko li ko yéem rek ci gone gi mu daal ne waaw waaw maa ko def exprès lekk loolu ba mu jeex ndax dama gëm ni lekk lu lew day fournir énergie pour nga mën a topp yàlla te kër ahmad xam naa ni kenn du fa togg lu du lu lewut kon xaaral ma gaaw lekk ba suur ba yëf yi jeex ndax ma am énergie jaamu yàlla gone gi daal di gone gi gone gi yar la ci diine xam na mu dégg waa guddi gi nag mu ni guddi gi daal bi ñu reeree ba ma jaaxaan taalal sama tànk yi di xool ci kaw xaddub néeg bi nee na sama xel mi ngi nekk ci ay masala daanaka lu mat juróom-ñaar fukki masala ak nangam moom laa doon réglé te balaa fajar jot ba pareeguma fajar jot na moo tax awuma jot sax guma naafila ci guddi gi te xam ngeen imaamu Nawawi nee na liggéeyal lislaam ci wàllu xam-xam day toll foo xam dana gën sax nga toog di naafila gis nga loolu kon nga di ko wax xale bi yooyu yu am solo la kon xudwa tamit xale bi am ku nekk moo tax tamit nag foofu ma def benn entre parenthèse bay na xaw say ni te waxoon naa ko te tànnum soxna ak tànnum borom kër noo bëggul sa doom mel ni bul takk jigéen ju ni mel noo bëggul sa baay mel ni bul takk bul ut borom kër gu ni mel waaye foofu dinaa wax ni jàngalekat boo xam ni ak kum mën a doon ay jikkoom gërëmoo ko bul ko jox sa doom déedéet ak kum mën a doon nag na taqaloog yow kër ak na la jege maadaama yow ay jikkoom gërëmoo ko te am nga firnde yu leer yu lay wax ni gërëmoo ay jikkoom bul ko jox sa doom parce que jàngalekat dafa sensible ci xale bi muy jàngal pour mu jox ko ay jikko dafa yomb lool lool lool lool lool ba jéggi dayoo moo tax gis nga gone yi jàng leneen lu dul diine ña ñuy jàng gis nga lañ leen defal ci ay jikko bokk na ci jumtukaay yi asalibu tarbiya mooy talbiyatu xaajaati tëfl mooy ngay fexe di wuyu xale bi ay aajoom ñun nag dañuy faral di jàpp ne xale amul aajo déet xale am na aajo am na soxla maanaam gone gi soxla bi mu am da nga ciy war a taxaw tey jii yow boo amee soxla yónnent boo amee ab yónnent da ngay woo gone gi kaay ma yónni la ci nangam soo amee looy defarlu nga ne gone gi kaay waaye gone gi moom am nay aajo su xiifee aajo la su maree aajo la su gëmmintoo aajo la bu gisee ay moromam sol lu rafet aajo la mu xale xamul loolu xale xamul ay muñal muñal ba xale dafa ngeen ne xale dana ñëw naan muñ muñal ba tabaski bii di ñëw xale daa xam luy loolu déedéet xale kenn du ko def loolu day toll étape boo xam ni muñal ba tabaski bii di ñëw ma xuttil la ndax déedéet am na loo xam ni xale xamut loolu man étape bi nga ko bëgg a bëgg jàppee day fekk marxala marxalaam yegg foofa kon ay aajo nga di ko ci fekk si tey nag gone bu amee aajo nga taxaw ci ci occasion yooyu nga profité ci waaraale ko ah gis nga lii de yàlla ma ma ko wërsëgal man bi ma ko waxee sax aw ma ko woon waaye damaa dem julli ñaar rakk ma ñaan yàlla gis nga yàlla wërsëgal na ma yow it nag demal nga julli ci gis nga mbubb mi boo ko solee na nga dëkk dem jàkk ji nga julli ci ñaar rakk nga santee ko yàlla gis nga yooyu ay yëf la yoo xam ne maanaam dafay nekk gaaw pour nga dugal ci xolu xale bi dara kon gone gi nga bëgg a yar sa doom la dañ la koy jox nga di ko jàngal ku mën a doon maanaam ay aajoom na nga ci taxaw kemtalaay la nga man parce que loolu dafay am lu muy marqué ci gone gi juróomeel bi ci asaali bi yi nga xam ni yarkat war na koo jëfandikoo ak ku mën a doon nag su ma nee yarkat bàyyi leen xel ni sëriñ daara beeg yaay jeeg bàyyi jeeg ñëpp ku am koo yar rek ci nga bokk mooy al adlu bayna al awlaad fexe maandu ci doom yi nga jur tomb boobu nag mbokk yi tomb bu garaaw la boo xam ni maanaam yi dafa am tomb yoo xam ni ñàkk koo def amut bàkkaar wala bàkkaar ba boog su ca amee taxut mu garaaw lool waaye bii nag moom ñàkk koo def dafa am bàkkaar te bàkkaar ba dafa garaaw benn waay dana yonent bi kaay seedeel ma mu ne ko looy seede mu ne sama doom ji dama ko may nangam nangam mu ne ko est ce que am nga yeneen doom mu ne ko waaw ndax may nga ñeen mu ne ko déedéet mu ne ko man du ma seede ci ludul maanute daal dem yoonam sallallahu alayhi wa sallam jaaduwut wayjur wi am ay doom moo xam benn soxna la yore moo xam ñaari soxna la yore moo xam ñett la yore moo xam yore benn soxna mën na ci nekk waaye su xësee jéggi benn soxna fa la maandu te gën a waratee nag ndax foofa la fitna gën a mën a juddoo dëgg la am na masala moo xam ni mat naa leeral fii gis nga doomu aadama la yàlla bindee lim moom lépp mu boole leen yamale sunu borom maanaam mu boole leen yamale loolu loolu nit nit bindoowut noonu moo xam sa yére yi nga am moo xam sa dàll yi nga am moo xam sa téere yi nga am moo xam sa matériel yi ngay bëgg faw rek am boo xam ne dafay taf ci sa xol noonu lay amee ci ay soxna noonu lay amee ci ay doom noonu la yàlla bindee nit loolu moom ku jógoon pour bëgg mu dañ jàpp naa ne di nga fournir énergie bi waa àddina yépp am te du dañ waaye nag su fekkee loola daa am ci ay soxna wala ay doom ci ñi nga xam ne yàlla wërsëgal na ay doom wala wërsëgal na ay soxna jéem koo képp nga denc ko donte jafe na donte jafe na nag jafe na lool lool waaye nag nit ki na ko denc allahuma lu dul dafa am benn maslaha boo xam ne yaa ngi koy def ku mel ni abdullah ibni omar dañ doon koy nettali naan nit ñi dañ doon wax naan saalim la gën a bëgg ci ay doom ndax affaire daa def ba feeñ benn bis nag mu ni tontu jot na mu ni yalumuuna ni fii saalimin wa alumuhum wa jildatin bayna al ayni wal anfi saalimu nit ñaa ngi may yedd ci bëgg gi ma bëgg saalim man maa ngi leen di yedd ci lu tax ñu may yedd man làqatuuma nëbbatuuma der bi ne sama diggante bët yeeg bakkan bi mooy saa doom ji di saalim te am na yeneen doom waaye lu waral loolu dafa fekk saalim moo ko gënoon a déggal ci jaamu yàlla saalim moo gën a nangu ci topp yàlla maanaam yooyu kon bëggeewu ko woon pour intérêt waaye topp yàlla la ko bëggee woon loolu tamit mu leer kon su ko defee gone yi yamale ci seen biir gis nga gone yi saa bu ñu yëgee ni seen baay dafa jeng ci ñoom mbaa ñu yëg ni seen yaay dafa jeng ci ñoom gis nga xeen bin lay jël saa bu ñuy màgg day gën a yokk est ce que xam nga ni dana dem ba màgg ba am sikkim ba sam samp kër te mu ngi een baayam nit dana dem ba yegg ci fu fu fu motee sëy te mu ngi een yaayam wala baayam lu waral loolu parce que xale bi ni muy màggee xeen gi day màgg loolu lu garaaw la boole ko ma bàkkaar moom taxul di wax moom kon nit ki dafa war a yamale ci ay doomam loolu nag tekkiwul ni même boo génnoon fii am benn orange boo ñëwee faw nga séddale ko sa doom yëpp déedéet loolu tekkiwul loolu loolu loolu taxul nuy wax ndax nit ki mën naa yore fekk ki gën a tuuti mu jox ko ko ndax kookaa ko soxla wala diw nga dañ njëkk a dajal moo la ko ñaan comme ni mën a amee ci ay soxna bunt boobu tamit ñu bàyyi ci xel muy bunt ab maandu ci donte yàgg nañ koo leeral ci durus yi kon fexe maandu ci say doom lu am solo la ndax xale yi kat soo maanduwul ci seen biir yaa ngi jur li nga xamante ni mooy ak mbañeel ak noonoo te gone yi saa bu ñu demee ba yëg ni diw nga gën a bëgg rek problème day daal di ñëw misaal bi ma koy joxeel te romb jàll mooy gis ngeen xisatu yusuf alayhi salaam donte yaquba kenn du ko yeddeelool ndax ab yonent yàlla la waaye am na def def yoo xam ne di leen bàyyi xel ni saa bu ko sunu borom defee ci ab yonent ab nattu la pour am njàng am ci ngir ñëw ñi seen ginnaaw id qaalu la yusufa axuuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba xale yi dañoo dem ba mu yàgg ñu ne waaye yéen yëg ngeen li xew ci kër gee gis ngeen ni sun baay mi yusuf la gën a bëgg déedéet yaqub ab yonent la yàlla jox na ko ay symptôme ak i mandarga yu koy wan ni sa doom jii di yusuf moo nar a nekk yonent sa gannaaw waaye wax dëgg yàlla nag loolu do du yam ak say doom mënu nekk beneen bi ci des mooy yaqub feeñut fenn foo xam ne danaan yëkkati jox kii yëkkati jox kee bàyyi bàyyi jox yusuf bàyyi ñi ci des déedéet waaye nag yàlla moo doon jàngale subhanahu wa taala gars yi ba loolu amee lan moo jur dañoo dem ba koo bokkal benn baay uqtuluhu nañ ko rey xoolal affaire bi fi mu fi mu toll dem ba ki nga bokkal benn baay ñu ne nañ ko rey uqtuluhu aw itrahuhu ardan wala wala boog nañ ko fexe xuma likit likite lañ koy wax nañ ko likite mu jóge fii gis nga xoolal mbir mi fa mu toll xeen boobu dem na ba jur te it nag soxna yi dañ ciy am wàll nag gis nga yaay yi ñu garaaw lan ci bunt bi bàyyi danañ def ay njuumte waaye yaay yi ñu garaaw lan ci maanaam léeg-léeg li sax ci dëndu xale yi yaay yee ko ciy jëmbat ah yéen seen bàyyi bi yéen loolu kenn du ko def ci xale gis nga seen ayi bi bàyyi ayi bi bàyyi ayi bi bàyyi kenn du ko wax ci kanamu gone yi ayi bi yaay yi kenn du ko wax ci kanamu gone yi loolu lu am solo la ci wàllu tarbiya gis nga seen bàyyi lii seen bàyyi ne ah yéen gis ngeen nangam nangam seen bàyyi ba nekk sàmba àllar fii ba tabaski yu jege jegesee ba léegi jëndul am xar gis nga bàyyi diw jënd na seen bàyyi nekk fii di sàmba àllar boo bërki démb la dim dimbali ci amul dara yooyu kenn du ko wax xale kenn du ko wax parce que day day maanaam ça veut dire que ñaxam ñaxam baña bañal sa bàyyi ngay jëmbat fi mu nekk nii yow ñaxam bañal sa bàyyi ngay jëmbat ci xale yi loolu kenn du ko def gis nga li ngay wax sa soxna yoonu gone yi néewu ci li ngay wax sa sa borom kër loolu bu ko gone yi di fekkee su ko defee kon gis ngeen fa mujjee ba nit ki jël ku mbokkal benn baay tàbbal ko ci teen subhanallah dóor ko ba mu bëgg a dee tàbbal ko ci teen xoolal risque yi nekk ci tàbbi ci teen mënoon faa dee mënoon faa nangam waaye yàlla moom lam na mu faw mu yegg gis nga kon maandu ci doom yi la yàlla dénk lu am solo la yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wasallam i'dilu bayna awlaadikum i'dilu bayna awla wax ko ba mu ñetti yoon maandu leen seen doom yi te loolu ci asaalib yi ñuy yaree la bokk bokk na ci asaalib yi ñuy yaree mooy istiqdaamul alfaaz alxasana mooy ngay utiliser baat yu rafet xam nga ni yarkat boo fekk muy saaga yarkat boo fekk muy wax lu bon ah loolu kenn du ko def loolu yarkat yarkat day moytandiku dëgg la nag doomu aadama doomu aadama la léeg-léeg mën ngaa rëcc li sax yëg ni da ngaa juum tey waaye bu mu lay faral di dal gis nga xeeti baat yi xew ci jamono bu ci jéem a wax benn am na loo xam ne rafetul ci yarkat mu di ko wax duma ci joxe misaal parce que baat yooyu man bëgguma mu génn sama gémmiñ waaye su ma waxee rek ñi xam-xam nan xeeti léeg-léeg nga dégg waxin yu yoo xam ne kenn xamut waxinu booy disco la waxinu kenn xamut lan la yooyu kenn du ko def xale bi da ngay fexe kaddu yooyu mu sib dafa am kaddu yoo xam ne dafa forox ci gémmiñu yarkat dafa am kaddu yoo xam ni dafa forox ci gémmiñu yarkat yarkat du ko wax gis nga seetlul mag ñi démb ni ñu doon defee yow damay dagg sa déegi de damay dagg sa déegi gis nga loolu loolu xam nga daanaka moom daanaka du dafa nuru aw aw aw saaga waaye du du saaga du dara du dara gis nga de ki xaa dafa rep tuubi ruubi xeet baat yooyu ñu doon jëfandikoo tuuguwaañ ma ko déggate kii xanaa dafa toskare xam nga baat yooyu baat la yoo xam ne wax dëgg yàlla ci min naahiyati zajr ci tëkku nit ki kàddu la yoo xam ne koo ko wax mu xam ne yaa ngi koy tëkku waaye min naahiyati uslub ku ne xam ne du uslub bu ñaaw tuugawaañ bu ma ko déggatee nga toskare kat gis nga genre yooyu waaye xale bi yàlla na nga dee yàlla na nga torox yow ku bon nga ci yow wala nga daggu saaga loolu kenn du ko def alphase yi ñu jëfandikoo dafa war a nekk alphase yu rafet yu baax xale bi tàmm loolu xale bi dégg ni kat sëriñ moom kenn du ko dégg mu wax wax wax bu wax bu bon ah jabari sëriñ kenn du ko dégg mu wax wax bu bon ah tey gis nga sëriñ bi lu mu baax baax baax jabaram bon yar bi du dem xamu loolu seetlu ngeen comme déet gis nga daawakat yu bare bare bare bare bare am na yenn ndongo am na yenn ndongo xam nga lu ñu doon wax ah jabari sëriñ de xam ngeen ne gëmul muuraay sëriñ a koy muuruloo rek waaye moom bu fi sëriñ nekkul muuraay ga ci digg bopp ba lay nekk xol xolal ndongo yi buñ dee bay bay bay wax affaire yooyu xam nga xale yi dinañ xam danañ xam hmm man jabari sëriñ ni ma ko bañee yooyu soxna yi tamit war nañ cee bàyyi xel soxna yi war nañ cee bàyyi xel te it xale yi dañoo garaaw de léeg-léeg léeg-léeg xale yi danañ xàmmee tey diw aye tey diw ayewut yo am na benn paa ci suñu dëkk moo may nettali ndeysaan muy nettali bu rafet ci sunu maam bu jigéen yàlla yàlla yërëm ko faatu na bi mu faatoo laa dégg muy nettali nettali booba bi mu koy nettali sax maa ngi koy gis mi ngi jooy nag muy nettali naan maire bii de paa bi daanaka làq na juróom-ñaar fukki at mu ni maire bii tëdd tey de ñun bi ñuy nekk ay tuut tànk ne ci kër gi di jàng bis bu musaana ay ay pancarte la ñuy takk ndax kontaan muy seedeel loolu maam ci sa ay sa shahadaat la lu tax mu wax loolu mu ni moom de dana ndonga yëpp dañ daan suur gis nga lu demee noonu ndonga yi yegg nañ ci caay caay dem ba am na daara joo xam ne ndonga yi dañoo dem ba wàcceel kaamil jabari sëriñ ngir tas mbaa mu dee xoolal loolu parce que ngir yëf yu bon yi nga xamante ne da koy def xam nga yu mel noonu kon yu mat a bàyyi xel la ci wàllu yar parce que xale bi tamit fexe ba mu bëgg la moo xam yaay sëriñ moo xam jabari sëriñ la loola lu am solo la ci wàllu yar kon ngay istixdaam alfazul xasana mooy baat yu baax ah di ko jëmale ci xale yi su ko defee loolu lu am solo la saa boo rëccilee boo nga ne ko ah maa ngi jéggalu de kàddu gii de gis nga xoolal rek yaa ma yóbbee lii lépp ma di ko wax su ko defee xale bi xam ni yow lii nga wax sax bëggoo ko woon a wax loolu lu am solo la ci wàllu yar juróom-ñaareel bi mooy al iqab maa muraati dawabitihi aw dawabit al iqab na ngay yar su ma nee iqaab sax xëy day tekki mbugal waaye mën naay tekki yar ndax yar mbugal taxu ko woon a jóg kon baat boobu matoon naa jubbanti may ci man dëgg la xale bi dinañ ko caw waaye caw dafa am aw yoon te loolu junjoon naa ko isaara woon naa ko maa ngi koy leeral fi mu nekk di wala maa ngi koy gën a faram fàcce bi ci njëkk mooy maanaam jubbanti xale du yar moo waroon a jubbanti gone déedéet du yar yar jubbanti taxu ko woon a jóg yar xiilatu man laa xiilata lahu solution ku amul solution la comme fase man damay wax ni sëy yi léegi benn ñaar ñett ñu jàpp ne fase mooy solution fekk déedéet maanaam fase dafa nekk dernière solution te l'islam am na ay tënk yu ko tënk yoo xam ne yegg ci sax daa gaawu kon yar la ci njëkk mooy yarkat bi moom faaw mu am yar ndax da ngay dégg xale yi di wax ne xale xamul yàlla yar la xam déedéet ahankay xale war nañ mën a fexe ba mu xam yàlla waaye alliqu sawta xaytu yaraaha ahlul bayt mooy da ngay am li ñu tuddee ak ndomba mbaag ceinture mbaa lu gën a oyof sax boog lu gën a oyof loolu ndax loolu sax mën naa diis ci xale bi bu dee gone ko tuuti la nga daal di wut benn pont dem ba fu kawe nga wekk ko fa te naan leen gis ngeen sama karwaas gii bëgguma koo ajj gis nga bu ngeen taxee ba ma ajji ko dinaa def loo xam ne dana leen yéem te loolu bëgguma ko de xale yi toujours nañ xam ne yow même boo dóoree bëggoo dóor loolu faw nga def ko ci xelu xale bi muy benn ñaareel mooy na ngay jëfandikoo toujours uslubul waasi balaa ngay dóor mooy yedd gone gi kaay mu génn yàgg moom ngeen dem ba ca kaw terrasse ba bu dee kër gu am terrasse la wala ngeen génn ba ca lëndëm ga ca buntu daara ja bu dee daar am na fu ñu mën a toog foofu wala ngeen génn dem ba ca jàkka ja nga ne ko yow de gis naa ngay def nangam ak nangam te man day am naa yërmande ci yow bëgguma laa dóor li tax bëgguma laa door nag lii ak lii ak lii la gis naa ni yow kat sa baay sama xarit la gis naa ni yow kat sa baay ku bëgg nga jàng gis naa ni yow mii ëllëg war ngaa mën a nekk imam genre yooyu nga di ko tas yi ay xale bi te it wax dëgg yàlla ma caw la ba na ëllëg nga nekk imam man loolu bëgguma ko gis nga yooyu wallahi téeméeri xale yoo jël quatre-vingt-quinze yi lii jubbanti na leen lii moom nekkatut lu ñuy jàng kese waaye lu ñu essayé ba gis ko la man dañ dañ ci am tajriba mooy expérience gis nga léeg-léeg nga yeddee gone noonu day daal di wàññeeku su tollantee ñaareel bi yoon man ngaa jaaraat ci même uslub ba wala nga seet beneen uslub boo jaaraat gis nga bu ko defee ñetteel bi yoon la ca ñetteelu yoon ba nag moom faaw moom xaysu yara yaraaha ahlul bayti moom faaw nga àjj ko bu ko defee soo ko àjjee boobaa nga tucc tuccal ko foofu nag tucc tuccal gi nañ bàyyi xel xam nga ni gone goo xam ni sawaay ay yaxam dëgëragul ah nga jàpp ko sawaay yeew bam ni ngodd pour di ko dóor ah déedéet loolu moom wax dëgg yàlla mbugal la waaye yaratu da ngay bugal te mbugal yàlla moo ko war di def gone goo xam ne yéggagut fenn fi nga jël ponkalum yar moo xam ni sawaay mbaam moo ko dóor mu dee nga di ko ko dóoree yaa ngi tooñ tey nag léeg-léeg yow yarkat bi da ngay tooñ jàng da ngay tooñ gone gi te bul fàttali tooñ tooñ du gàllaaj loolu la olof yi wax tooñ du gàllaaj de beneen bi ci des mooy saa boo jëlee yar di ko dóor ah ci biir dóor gi mat naa sàmm bul ko dóor lu ëpp bul ko dóor lu ëpp maanaam am na dóor yoo xam wax dëgg yàlla dafa ëpp dafa ëpp torop torop torop torop maanaam dóor du woon pour mitital ko yow mitital ko ak faj mer wala faj sa naqar taxuloo woon a jóg déedéet li nga bëgg mu bàkko loolu lay bàyyi xale bi boo ko doon dóor ba mu yàgg mu siñanteeg yow accord ni dootu ko defati na te te te musulaa wax loolu da nga war a bàyyi xëy na ku ñàkk jom koo xam ne da koo defoon nga dóor ko muy duma ko def ba pare defaat ko waaw kay waaye gone goo xamante ni mi ngi koy def mu ni insha allahu du ma ko léeg-léeg nga gis sa xale bi billahi wallahi tallahi du su ma ko naratee def nangam nangam léeg-léeg ñu wax ba wër la yooyu wax dëgg yàlla su fekkee gone gi musu koo def suba wa da nga ko war a bàyyi beneen bi ci des mooy da ngaa war a def li ñu tuddee muxaatabatul aqli qabla muxaatabatil jild waxal ak xel mi bala ngaa wax ak yaram wi waxal ak xel mi mooy li ma doon wax sànq woo ko yedd ko waxtaan ak moom léeg-léeg gone yi duñ wax ak ñoom te gone gi amaan na boo waxtaanoon ak moom mu bàyyi li nga ko digal kon da ngaa war a waxtaan ak xel mi balaa ngay jëf jëflante ak la nga xamante ni mooy yaram bi juróom-ñeenteel bi da cay dugg ba léegi moom it mooy ida tasama aw istaada bi muaadin fa aidhu xale bi bu amee ci lum làqatu wala mu muslu ci lu jër a muslu bàyyi ko misaal bi comme lan tey su ma tiimoon sama gone di ko dóor mu daw làqatu ci gan gi ñun ñun yarkat yi da ngay dem foqar ñi ko loolu ñàkk yar la sax ci gan gi de doo ko foqar gi da nga koy baal baal gi après dafa am ay sabab sabab bi moom gan gi mën na caa lëggéey lenn mooy gis nga lii waroo koo def fi ne nii su ma la làqul woon tey jii dinañ la gaañ ragalal yàlla daal di koy waaraale su paree yow it nga jël sa kàddu gis nga gan gi xam nga dama ko rus te man du ma xotti ormay jullit mu ne mënoon naa laa fekk ci moom foqar ñi ne te su ma la foqar ñi woon moom du ci man dara waaye nag jullit day am orma day ormaal bo yooyu xale bi soo koy wax da ciy bàyyi xel beneen bi ci des mooy yaay di dóor bàyyi doom doom daw dàq làqu ci bàyyi wala bàyyi di dóor mu daw làqu ci yaay bàyyi ko wala mu làqu ci maam bàyyi ko xam nga lu tax maanaam gis nga kooku comme xale bi gëm na ni fii ab làqukaay la kon soo ko ca waaree pour mu góorgóorlu maanaam xale tamit xam ngeen xale nag wax dëgg yàlla faaw ñu may ko fu muy làqatoo nag yow koo xam ni amoo doole amoom xel amoo alal yow daanaka da nga yaakaar nit ñi dañ lay bëgg a rey te amoo fenn foo daw làqatu foo làqatu ci moom a xaat la loolu baaxul ci yaram day dem ba da ngay day mel da ngay torturer xale bi waaye war naa am koo xam ne bu làqatoo ci moom kooka nag bu bu bu xale bi profité ca loola def ko yoonu tool saa bu defee njaaxum rek ñëw làqatu ci moom loolu nag maam yee ci gën a gën a gën a gën a mën a juum nag maam yee ci gën a mën a juum ñun ñii maag ñu ngi fàttaliku ndeysaan sunu maam moo ñu daan moo ñu daan dimbali ci loolu ba ñuy nekki tuut tànk waaye nag léeg-léeg rek moom moo ñuy ñamal nag léeg-léeg moom moo ñuy ñamal yar yu saf sax waaye nag li ëpp buñ masaan làqatu ci moom rek moo ñuy dimbali buñ masaan ay añ bàyyi ñu moo ñuy may woggu cere defe naa woggu cere gone yi Dakar yi xamuñu ko waaye mag ñi xëy na war nañ koo xam woggu mag ñi boo demee ca àll ba ñoom jigéen ji bu ayee bu tayee cere day indi ngandaw dànk cere ñu tuddee ko aw suusal ñu jox ko maire yi maire yi téye ko bu ko defee ñun gone yi bu mosaan a wàcc tool xiif yooyu dafa baax ci xale xoolal li may nettali ni yàlla xam ne ni ci sama juróom-ñaari at la woon xaw ma juróom-ñax te ba léegi fàttewuma ko mi ngi mel ni tey lu tax parce que loolu dafay marqué xale loolu day marqué xale gis nga su ko defee yooyu yu am solo la bu ko defee xale bi nag bañ koo def yoonu tool mag mi bañ koo dimbali ci saa bu tooñee rek ñëw làqatu gis nga yooyu tamit eh yow kat boo fi ñëwati boo liggéey du ma yow tooñkat nga yow nangam nangam lii boo ko defati boo liggéey du ma la làq su ko defee dana mën a moytandiku beneen bi ci des mooy xale bi mën naa xam li nga gën a bëgg mu tinu la ci loolu gone gi mën naa xam ne yow ku fonk xoraan nga nga jëpp ci mu ne oustaz tinee ma lii tinee ma lii ngir yàlla loolu day am de gone yi ñu garaaw lañ waaye nag sëriñ daara nag ndonga la woon nag sëriñ daara ndonga la woon de mënee su koo nax bi haadihi suhula xam nga gone yi ñu ngi koy dégg kam déet léeg-léeg mën ngaa ñëw ñu xam ne yow alquran nga gën a bëgg rek ñu def nii sa diggante téere beeg ngir ngir rusee nu loolu gis nga loolu bu la ko xale defee rus ko bàyyi ko parce que saa boo ko saa boo ko fëqee rek allahuma lu dul charte bi tax nga mën koo fëq mooy nga gis ne xale bi yoonu tool la ko bëgg a def wa illaa boo kii li muy wax sax gëmu ko foofa nag su booba nag yaa xam ban usul waaye nag bu fekkee xale bi jaaxle na man ñun noo ngi fàttaliku biñ doon jàng du dañ ñoo waxoon ni neefarey bay neefarey bay boo ko jëlee nga tari ci xawma ban saar fàtte naa sax saar wax neefarey bay daal soo ko jëlee nga tari ci wan saar bu sëriñ bi ñëw nga sànni ko ci xarantey tànkam rek bu ñëwee day jànnaxe du la gis ñun dañ daan def loolu bu ñu yégee ni sëriñ bi mer na rek xam nga xaare loolu lépp pour bëgg a mucc la saar woo jàpp ni maa ngi fàttali ko wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa axseenam fahum laa yubsirun fahum laa yubsirun fahum laa yubsirun daal di koy tëf sëriñ bi ngir bu ko yegsee bu mu la dóor yooyu yëpp xale da koy def parce que dafa jaaxle amul fu mu jëm xam nga yàlla dane wa jaalna min baynihim saddan def naa seen ndeyjoor baaraas seen càmmoñ baaraas fa axseenam ma seen ma xaloo leen fahum laa yubsirun duñ gis su ko defee boo ne fahum laa yubsirun tufli ko fi sëñ bi bàyyi koo rek su ko defee sëñ bu dikkee day gëlëm du la gis gis nga yooyu yëpp xale da koy jëfandikoo lu tax mu koy jëf parce que dafa jaaxle moo tax lu mu ci mënti dégg rek yooyu da koy daal di jéem a mokkal kon nga bàyyi ci xel beneen bi ci des mooy gone gi gis nga bu xamee ne julli nga gën a bëgg mën na laa ndax ci julli am na sunu gone gu fi nekkoon ci daara ji tuuti ni ni lii la toll tuddoon Modou Cissé defe naa gone yi xam nan ko damaa taxaw ca buntu kër ga fekk dama leen doon tere mbedd mi ma xupp ko ci ñaari yoon ma génn seen ko rek mu ne ficcat daw dugg ci biir jàkk ji ma ñëw topp ko ma ñëw ci jàkk ji fekk ko ci ruq bële mu ngi tari alquran di tajwid tajwid goo xam ne man jamono jooju ay reetaan jàpp na parce que bi may ñëw yéene dóor ko la amoon yàlla xam na ko waaye jamono jooju maa est ce que sabisma la doon tari sax man xamatuma te àggul sax sabisma maa ngi dégg mi ngi yaatal tànk yi nii teg loxo bi fii naan sabbih isma rabbikal aala di tajwid yëngal bopp bi ma xool ko xool ba mu yàgg ma ne kii daal naa ko bàyyi ma dem te bi may génn kër ga boobu yéene dóor ko laa amoon loolu tamit ñu bàyyi ci xel su ko defee xale bi nga ñëw fekk ko muy julli nga yàq julli gi di ko dóor loolu kenn du yaree noonu maanaam man jamono ji ma koy gis muy julli da yàlla xam ne dafa mel ne li ma meroon lépp dafa dañ waaw loolu nag na ko xale yi def yoonu tool nag bu ëllëgee kuñ bëgg a kii rek nga dem di kàbbaar di julli boo ko defee doo mucc de gis nga kon yooyu tamit ñu bàyyi ci xel xale bi léeg-léeg mën naa yëg ni da nga koo bëgg a dóor am na fii koo xam ni benn gone moo defoon njaaxum gu rëy njaaxum goo xam ne ëpp naa nettali sax daa ëpp xamuñu kum doon ma ne leen yéen ñëpp laay dóor ma gis ci koo xam ne keroog lam ñaan moom xam naa ne moom yàlla nangu na ko moom kooku moom xam naa la tee ma dóor ko moom keroog yàlla nangu na ñaan ko ndax damaa ñëw ci nee bi fekk leen mbooloo maa ngi toog maa ngi ko seen mu ngi kabbar yàggal julli gi yàggal goo xam ni ma wiiri del si waat mu ngi ci julli gi ma wiiri del si waat pare na ci julli gi ba nga tàllal loxoom di ñaan man mënu ma ko wax baa sa ñaar yi mun maa wax bàyyi sa ñaan yi mun maa wax bàyyi sa dóor yi ma ma toog di ko xool rek waaye gis naa ni keroog ni mu doon ilxaaxay man gëm naa ni lam doon wax lu mu gëm la ndax benn deful woon moom bokkul ci ñi def te it xam na ma xam gu doy dana leen duma tey te duma yëma leen duna doon duma duma yu métti la waaye ñaan yooya dem na ba bi ñu noppee ci laa ne ko nag ah gëm naa ni sa ñaan yi de nangu na ndax yàlla nangul na la ko kon yu mel noonu tamit ñu koy bàyyi xel donte nag gone yi nag am na ci ñoo xamante ni sa waay dañoo doy waar de buñ la xamee ni yow mii fii lan lay naxee rek fa la ñuy jaar comme la gaari def Abdullah ibn Omar xëy rek kaalawu tusngalu rek dem ca Kaaba gay sëgg ka sëgg rek di julli rek ngir bëgg mu goreel la mbir yi am na yoo xamante ni bi hadihi suhulati wal basata doo ci génnee noonu kon yooyu tamit ñu bàyyi ci xel mooy xale bu amee ci lum làqu nga tinu ko léeg-léeg sa nga gis xale yi manam nag genn gone fii bis ñu di ko dóor keroog li mu wax dama tiit ndax la tax ma tiit mooy fu mu mën a déggee loolu mu ni lan la waxati la waa as xale ba waxoon as kii allahuma kfinihim bima shita subhanallah baat boo xam ni man fàtte woon man dama koo fàtte woon sax ci biir lin jàng mooy xale ba nga xamante ni moom moo nekkoon ak buur ba ñu nar koo rey ñu boole koog ay gaay ñu dem ba ca géej gi mu ñaan allahuma kfinihim bima shita waa gaal ga lab moom mu mucc ñu yëg ca montagne mu ne allahuma kfinihim bima shita ñu xalangu ñoom ñëpp dee ndekete bi ma paree man après ma ni xaar naa gëstu ndekete xale bi daa am ko doon fàttali ci daara ji daal di wax lu mel noonu mu ni xale ba mu ko waxee ca la mucc mu jàpp ne fi ne moom bu ñu koy dóor boo ko waxee da ngay mucc xam nga ñu mel noonu tamit ñu bàyyi ci xel xale bi léeg-léeg li mu xam ni bëgg nga ko su dee yëg nga ni kii ku dëggu la du caaxaankat juum na bu fekkee dafa tinu da nga ko war a tin loolu mooy li gën ci wàllu tarbiya bokk na ci wàllu tarbiya mooy at tafriqatu bayna ma kaana sababuhu al jahl wa ma kaana sababuhu al amd nit ki nay teqale diggante nit ki lim tay ak lim tayut xam nga tamit wax dëgg yàlla njuum ca am rek nga dóor wala njuum ca am rek nga yedd loola yarkat du ko def léeg-léeg mën naa am dafa juum ma jox la benn exemple xale bi ñu jox kaasu ataaya mu ñëw di la ko jox si rek mu rëcc toj nga duma ko ci loolu te yow amaana boo seetoon ba ci biir da koo rëcc yow mën na laa rëcc di mag bi ma kaas mën na koo rëcc de defe naa la ma leen nettali woon ca xale ba doon wax maam looy xullee bay daanu lan la la doon gone nga dong moo dal maam ji gis nga kon am na yoo xamante ni xale man man nga koo tere mu def ko fekk dafa juum loolu nag yarkat bi nag moo war a gis nga yarkat te foofu nag pour nga xam ko yaay nekk yarkat ki nekk yarkat mooy xàmmee loolu am na koo xam ne bu ko dalee da ngay xam ni kii daa juum waaye tayu ko kon côté boobu tamit lépp lu xale bi tay nañ ko ràññat li ak li nga xamante ni gone gi tayu ko parce que gone tamit gone la léeg-léeg mu def yëfi gone gis nga gone gi mën nga koo tere saw ci buntu kër gi ah muy saw ba seen la dagg saw la te loolu sax baaxul parce que loolu day yàq day day am ay kii yu muy def ci naq bi te fekk loolu amaana li muy def da ko fàtte tayu ko Omar ibn al-Khattab da koo daloon ci benn gone muy wax ak gone gi gone gi kalaame ko ba Omar fadal ko ay aajo mo gone gi nan billahi sama na Omar ni ko eh bàyyil giñ giñ baaxul giñ yu bari nii baaxul baaxul mu ne ko yow kuy sa yaay mu ne ko diw mooy sama yaay mu commencé di wax ak moom ay wax yu ñu dem ba ci yoon bi xale bi ñaari baat yu wax rek mu ne ko billahi mooy sama yaay Omar daal ni ko yow lu ma la waxal mu ne ko damaa fàtte dafa fàtte parce que nit ki li mu tàmm laago tamit da ngay def ndànk ba commencé mu dañ waaye tay tay tay tay tay tay tay tay mu dañ xale bi léeg-léeg mën naa nga tere lim ko gis nga am na lu ñuy tuddee xoolub yar nga siggi ni ko jàkk mu ni jàkk nga sëggaat loolu wax la loolu yar la waaye bu ñu def lu mu njëriñ nga jël yar parce que yar bi tamit benn booy dóor xale bi waroo koo dóoree fu muy toroxee loolu tamit lu mat a bàyyi xel la lu dul dafa féttéerlu bokk na ca yooya mooy bu fekkee mag la bu nekk ak ay rakkam ci daara wala sa taawu kër ci say doom soo koy dóor bu ko ko nay fekke loolu bokk na ci asali bi nii yaree bu ko ko nay fekke beneen bi ci des mooy su fekkee yëf la luñ koy wax wala luñ koy def loo xam ne mën naa torox ci kanamu ay xaleem ci ay moromam làqal fa nga koy defee buñ ko fekkee loolu tamit ci asali bi kii la bokk beneen bi ci des mooy bul bul bul boole di dóor ak di wax wax yu bon wax yu bon oh yow mbaam mi nga doon yow yow yow déedéet loolu kenn du ko wax nit doo ko fekk nga naa ko yow mbaam mi nga doon ak yooyu loolu ku rëcc la rek moo koy wax te ba pare war ngaa tuub ca loola kon xale bi wax dëgg yàlla yow li yow sawaay yow boo fi nekkoon imam léeg-léeg ma gis benn xale bu sol solul tubay loolu laa koy wax dama ko yow sawaay bis boo nekkee imam ñuy fàttaliku ba nga solul tubay gaawal solul tubay gaaw ba nga fay nekk imam jàkka ji yu mel noonu léeg-léeg nga wax ko benn xale rek yàlla dimbale ko mu daw lu tax kon façon yooyu moo gën nga di ko wax yow mbaam nga ak yow kal bu yaa kal bu yow xaj bi yooyu kenn du ko wax déedéet kenn du yare noonu loolu day yàq yar kon su ko defee booy dóor tamit bàyyil xel ni barab yi dul dóor bopp ak li ko wër rës wa ma waa wa ma xawaa bopp ak li ko wër yépp kenn du ci dóor du gone du mag nag bu loolu jàllee am na point yoo xam ni am na point yoo xam ni mag moo fa dóor sax gaañ ko gis nga nit boo ko beetoon muy dem nga nga xàcc waxuma ne sax dóorub korosé nii nii rek jaasi loxo bi rek nga ni ko nii rek automatiquement day mel ni da nga baare sidi ci bopp bi loolu baaxul kenn du ko def waxoon naa fi misaalum xët jigéen ñi ni ñuy xëtee ci loolu kenn du ko def gis nga ki ngay xët yëgul ni yaa ngi koy xët wala yëg na ko waaye mi ngi tombeek muy noyyi def nga musiba ju rëy moo tax leneen mën ngaa dóor benn dóor rek mu daanu xam wala mu daanu dee gis ngeen boxeur yeeg yooyu ni ñuy def kon moo tax xale bi du ne nga koy dóoree du waxtu wu nekk nga koy dóoree du yar bu ne nga koy dóoree xam yow xam nga lu tax ma dóorale fii ci biir néeg bi xam nga damay bañ nga torox man xam nga ni fonk naa la parce que mënoon naa la dóor ci kanamu gone waaye damaa bañ xale yi gis sa torox tànge yooyu nga di ko maanaam di jëfandikoo baynal asaalib loolu lu am solo la ci wàllu yar su ko defee yooyu nit ki di ci bàyyi xel ci wàllu yar dóor bi it nag bu dee gone la gu yeggut fenn foo xamante ni daanaka ñetti yar sax doy na ñett rek doy na su doon bari ba bari ba bari ba bu mënee bañ a passé fukk moo gën xale moom jëlal lu saf rek ni ko tacc te it bokk na ci cër yi gën a mën a baax a dóor mooy fii ñi ngay dégg ñëpp ñu naan dañoo dóor gone ba gaañ ko talalal sa loxo du ci bokk seetlu leen loolu gis nga yar bi nga yore allahuma lu dul dafa nekk yar buy gaañe wala bu amee jam-jam wala demee noonu waaye yar bi lu mu saf saf saf bu dee gone gi lii kaf loxo bi la tënkam loxo bi la tàllal di nga ko dóor dana métt doo ko gaañ moo tax yarkat yi dëgg dëgg dëgg ñoom dañuy taamu wax xale bi mu tàllal loxo ñu dóor ko parce que ñi ngi bañ dóor xale bi fu ñu koy gaañee beneen bi ci des mooy booy dóor ba yëg ni gone gii réccu na lim doon def arrêté dóor même la nga naroon a def boo ko naroon a dóor fukk nga yëg ni bi nga dóoree benn kii réccu na tey nga bàyyi loolu tamit bokk na ci asalib maam dóor daal am na ay tënk-tënk yu bari yoo xamante ni yooyu bokk na ci bokk na ci yi ñuy jëfandikoo pour yar mooy taqdiru aqli tifl maa tasjiihi mooy di natt xelum xale bi fu mu toll ak di ko encouragé xale di jéemantu benn affaire nga yow puusal fi ni nga sobee dafa nga da nga mën a defar courant bi waaw bu doon courant nga wax ko ko waxin wu oyof ndax courant wóoru d' accord waaye bu fekkoon lu ñu war a mën a defar la ci misaal xale bi ñëw di defar loo xamante ni moo xam taabal ji la moo xam kii jàkk puusal fi yow ni nga sobee ah déedéet loolu kenn du ko def xale xale suy jéemantu da nga koy encouragé waaye kenn du ko yàqal parce que yaa ngi baare xelu xale bi gis nga léeg-léeg nga yor doom ju tuut ab mbocc li ñu naan mbocc tuut tànk ci sa biir kër mu def benn geste boo xam da ngay xam ni kii mi ngi jéemantu kooku kenn du ko kenn du ko toroxal wala nga di ko dàq loolu yaay yi ñoo ci gën a gaaw ak bàyyi yeeg yarkat yi loolu kenn du ko def xale da nga koy encouragé waa ku def lii ñuy diw yent bi noonu def sallallahu alayhi wasallam encouragé la yow kaay nga wax lan nga gën a bëgg ma ñaanal la ko yàlla mu ne ko dama bëgg boo duggee àjjana ànd ak man ah gis nga de gone gi dafut waaye xam na lu baax de ku def lii Abdullah ibn Abbas mu ne ko kaay ma ñaanal la yàlla ak ak ak ak yeneen ak yeneen noonu la ñuy encouragé xale gis nga bu ko defee kon yooyu bu xale defee da benn affaire boo xamante ni affaire bu ñor la da nga koy encouragé xam ngeen ne Abdullah Omar ibn Abdul Aziz moo waxoon gone ga toogal waay mas ngaa gis ànd ak i paa mag yi jëmm nga doon xale bu xonq cooy da ngay wax xale bi ne ko bu fekkonte ne mbirum mag la ak gone kenn du la fal amirul muminin ndax am nañu la mag ci waa dëkk bi mu ne ko jugal jugal yow nga wax yow mii doo gone kon gis nga gone bu defee yenn gestes yu mel noonu dañ ko war a encouragé waaye kenn waru koo décrasé la wala yu demee noonu foofu misaal yi ci mën a joxe yu bare bare la ci yenn ñuy encouragé waaye yeneen yi nga xamante ni ñoom dañuy découragé seeni gone gone boo ko yar da nga koy encouragé ah xale bi day jéemantu ñëw menace fii léeg-léeg pour pour encouragé xale bi ah waaw kan ma doon menace fii ñu ni gone gi la fekk amaan na sax xam nga ko noonu la ñuy yare amaan na sax xam nga ko ba pare ah waaw lu lu set lii ku ko doon menace waaye ñu ni diw ah man de yow fooguma woon ni man ngaa menace yow macha allah yow kat moom naa nga yow xaaral ma neexal la gis nga gone gone ak jigéen ñoo bokk boobu jikko nag li ñu tuddee jay jay ci façon bi dagat nag laay wax gone da koy bëgg jay googu nag encouragé laa ci jublu ah su ko defee léeg-léeg nga ah indi indi ma bàyyi ma def nangam fekk xale da nga koy bàyyi mu jéem ñun da ngay gis koo xam day màgg ba ni lëng du man dara parce que kenn du ko bàyyi mu jéem kon gone dañ koy bàyyi muy jéem même bu ñu xamee ni lii sax mënu ko waaye diisut waaye yaa ngi toog ci peggam di ko jubbanti bàyyi ko mu jéem kon noonu la ñuy yaree waaye xale kenn du ko tiital ak di ko di ko ragalloo wala di ko découragé loo wala gëmloo gëmloo ni ko am yaccax nga am la cax nga waroo def dara déedéet loolu kenn du ko yaree waaye gone boo ko yar da nga koy bàyyi muy jëfandikoo am xelam moo xam jigéen la moo xam góor la léeg-léeg sax bu jaree nga encouragé ko nga encouragé ko bokk na ci fukkeel beeg ñett mooy gone gi ci boppam na nga fexe ba na nga ko def mu nekk nit jox ko comme gëdd bi ñuy jox mag xam nga ñun ah kii de gone la amul problème garaaw déedéet loolu kenn du ko def de yonent bi daa toog sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi wër ko ñu andil ko koppab soow mu naan ba pare fekk Abdullah ibn Abbas moo nekk ci wetu ndey jooram paayaa ngi ci côté càmmoñ bi loolu riwaaye bu ñaar benn Abdullah ibn Abbas benn beneen saxaaba la léegi te xam nga bu fekkee da ngay jox nit ñi ndeyjoor nga war a tàmbalee yonent bi daal ne Abdullah ibn Abbas ah yow de yaa nekk ndeyjoor doon te gone nga sa àq la nag waaye est ce que may nga ma ma jox paa yi ñu naan ba pare nga doog a naan Abdullah ibn Abbas ni ko déedéet déedéet mu ni ko lu tax mu ni ko fi nga teg sa gémmiñ foofu la paa yi yépp bëgg a teg seen gémmiñ naan ca man noom li mu bëgg loolu laa bëgg man allahu akbar gis nga de c'est que saxaaba yi dañ doon bàyyi bu yonent bi tegee gémmiñam ci pot ñu xool fi yonent bi teg gémmiñam ñu teg fa seen gémmiñ loolu dañ ko doon royee yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag moom rek amut keneen mu ne ko paa yi liñ bëgg loolu laa bëgg yonent bi ne ko ah comme moom nga bëgg am sa àq la sa droit la waaye bu doon ñu na bu doon ñu ne fi mu nekk nii daanaka daal xaw ma dañoo xir ci sunna xaw ma dañoo xamut ah doo laaj sax te li gën a garaaw sax dañoo jugal fii ci ci mag ñi déedéet xale léeg-léeg dañ ko wax jugal fii ci mag ñi waaye léegi dañ kaa war a indi ci mag ñi magum jugal fii ci mag ñi te loolu tomb la dina ñëw léegi insha allah kon gone gi da nga ko war a i'tirafal bi shakhsiyatihi wa adamu hadumihi maanaam bul ko doyadal bul ko doyadal da nga ko war a jox la nga xam mooy gëddam mu yëg ni moom nit la ëllëg war naa mën a nekk borom xam-xam war naa mën a mel nangam yu demee noonu waaye bañ koo doyadal bañ koo soobantal loola tamit kenn du ko def ah kii de gone la garaaw amul ko amul ki déedéet loolu kenn du ko def maanaam gone gi nit la te ëllëg mooy màgg te it nag bul fàtte ni gis nga yu sew sewaan yii ngeen koy defal te bokk na ci li ma gën a yéem mooy xale du fàtte léegi gis nga ñun ñii sama classe gii nga xamante ni xaw nañoo commencé nekk borom kër mën a fàtte mën a fàtte ba lu la wax fii bala ngaa génn nga fàtte ko seetlu nan ni am na yoo xam ni ba tey mi ngi des ci xel mi te booba juróom-ñaar juróom-benn nga am ba léegi doo ko fàtte ba tey doo ko fàtte xale gaawu la fàtte moo tax gis nga looy def ci xel mi la nekk lu baax gis nga léeg-léeg nga def jëf joo xamante ni xale subhanallah du ko du ko fàtte mukk yàlla boo ko dóor nag ba tërgënal ko nag gis nga tërgën xam nga tërgën moom luy gën di màgg tërgën di gën a màgg saa bu ko xoolee rek xelam dem ci yow yooyu bokk na ci yi ñu war a mo- moytandiku ci wàllu yar am na xeeti wax yoo xamante ni boo ko waxee gone du ko fàtte mukk yooyu kenn du ko def kon côté boobu tamit ñu bàyyi ci xel bokk na ci fukkeel beeg ñeent mooy mujaalasatul kibaar wa xudur majaalisul ulama i taaratan waaye taaratan laa ciy boole léeg-léeg ñu koy bàyyi mu toog ci mag ñi di gis léeg-léeg ñu koy bàyyi mu fekkee jataay abdullah ibn abbas omar dagal woo muy fekkee jataay paa yi paa yi di ko naqarlu naan ko kii am na suñuy doom te suñuy doom fee lañ leen di bàyyi benn bis mu ni leen waaw yéen laa bëgg ngeen tafsiral ma ida jaa nasrullah kii naan xar yi jaar na fii kee naan bëy yi jaar na fii kenn ku nekk di am lu wax abdullah ibn abbas firi ko firi mu jekk ba noppi daal ni day wane ne yonent bi la ñuy tàgge Omar ne ah paa yi lu ngeen wax ñu ne ah wax dëgg yàlla li mu wax di jub na xocc mu ne lii moo taxoon ma xam ni gone gi ma loolu la olofi naan gone bu loxam setee mu mën a bokk ki mag loolu day am de léeg nga gis gone yoo xam ni macha allah loolu nag tekkiwul ni comme ni ko sunu mbokk mi doon junjee barki dem am na yoo xamante ni gone yi waruñoo fekkee fu ko mag ñuy waxtaanee waaye nag am na yoo xam ne nañu leen bàyyi ñu toog bu ko defee ñuy mën a jariñuwaale xataa boo doon jàngale dara sax benn xale daal di laaj wuyu ko wuyu ko gis nga laaj ba bu doyee di woon tey man ñi daal di reetaan fekk déedéet yow yow la laaj bu doyee di ci waaye gone gi moom lim laaj loolu la tollool gone gi lim laaj loolu la tollool kon su ko defee yooyu tamit nit ki di ci bàyyi xel xam ni xale bi fii nattukaayu xelam toll foofu rek la mën a toll bokk na ci fukkeel beeg juróom te hiilu sabiyi ma mudawamati mutabaa xale bi da nga koy teel a responsabiliser xale da nga koy teel a jox responsabilité loolu lu am solo la léeg nga jékki-jékki guddi jot sa doom ju góor wala yooyu nga ne am caabi ji dama tëj buntu kër gi bala nga koo tëj nag nga wax bismillah fekk yow am nga amoo aaju ci mu tëj buntu kër gi waaye da ngay jàngale gis nga am mi ngi noonu léeg-léeg mu jékki-jékki ba mu yàgg nga ne ko garab gi ci kër gi demal nga wutal ma benn ay neefare fii me ko nga defar ko gis nga ni ma ko doon defaree keroog demal nga defar ko fekk yow du caagee ne da nga am aaju ci mu defar ko waaye da nga koy jox ay responsabilité ah ñëw ci barab bi yow kat bu ñu xëyatee yaa war a bale wala yu contrôle maanaam xale dañ koy teel a jox benn borom xam-xam dafa bind ci fànn yar dafa wax ci tomb bu mel ni tomb bu am solo da ci wax lu am solo mu ni soo xoolee fu mel ni Afrique soo xoolee fu mel ni Afrique réew yi nga xam ne ñoo dul Afrique moo xam européen yi la wala yeneen ñi ñoo ñu gën a avancé ci bunt bii mooy seeni gone dañ leen teel a jox ay waxuma la nga jox responsabilité bu ëpp waaye seeni gone dañ leen teel a tamal su ko defee da ngay gis gone gu tuuti goo xam ni 18 ans lay am rek mën a jiite benn entreprise lu ko waral parce que dañ ko teel a responsabilisé mu ni fii nag suñu Afrique gi da ngay gis nit mën na dem ba am 30 ans ñu doog koy doog a may soxna yàlla xam ne du xam sax nu ñuy joxee dépense loolu kenn du ko def gone dañ koy teel a responsabilisé di ko di ko di ko di ko jox ay responsabilité ah xar yi xar yi bu timis jotate na nga leen fat ginaar yi boo xëyee te defar nangam nangam fekk du caagin yow da ngaa bëgg ku la noppal déedéet xale bi nga bëgg tamal gis nga te it di ko encouragé ci yooya ah yow yaay mag yow yaay taawu kër gi xam nga ne xale yaa leen di war di soññ bu julli jotatee soññ leen bu ko defee loolu ab xale dafa bëgg ku ko jox ab ab cër. xam ngeen ne yéen sa salaf Usaama bam koy jox naa ko kay jiite guerre bi amul 20 ans à l'âge de 17 ans 18 ans ci la nekkee généralu guerre généralu guerre boo xamante ni borom 65 ans ngi ay ay ay borom yi 65 ans ñi ngi ci biir armée bi. firnde ya Abubakar nga ca Omar ma nga ca ñangeen ña nga ca ba nit ñi doon wax naan pourquoi yonent bi seet gos bi naan da koy jiital kon yooyu ay xeeti responsabilité la yoo xamante ni nit ki da ko war a bàyyi xel di ci responsabiliser gone gi gis nga bu ko defee nag di ko waaye nag ma al mutaabaa di ko contrôler nag léeg-léeg nga yëkkati dara jox ko waaye nga di ko contrôler xool ba xam li muy def baax na wala baaxut fukkeel beeg juróom benn mooy siatu sadril murabbi ma tafriqa li tarbiya ku yar faw nga yaatu dënd gis nga mag boo ko yar sax fa nga yaatu dañu waxuma laa gone gone xamul mënut amut yi nga yaakaar yëpp amul ci moom kon faw nga yaatu dënd faw nga mën koo muñal di ko comprendre léeg-léeg mu def jëf joo xam ne ju doy waar la waaye nag li olof yi tuddee naxasaale nga naxasaale rek bàyyi mu jàll te it yaatu dënn gi bokk na ci gis nga xale mën nga koy gis muy def def njuumte léeg nga ne ci biir xalqa bi ci misaal bu doon ci xalqa bi la ngay jàngale sa bët ngi tay nga seen ku yore lu xaraam xale bi xool la nga xool ko nga sëggaat bul wax dara nga bàyyi bañ génn nga ne ko est ce que xam nga ne li nga def sànq gis naa ko xam nga bañoon laa toroxal moo tax ñëwuma te lii da nga koy moytu ko su ma ñëwoon def gis nga loolu du ko yorati bu dee ko nar a am jom loolu du ko defati yu mel noonu tamit yaatu dënd gi moo ko man beneen bi ci des mooy xale bi tamit léeg-léeg maanaam li nga nit nit ki ni mu ameem xel xam na ne da ngay nelaw xale mën naa xamul loolu dañ ko ca yar rek waaye xamu ko xale bi xam na da xamul da ngaa sonn xam nga mag mën naa ñëw di la waxtaan si nga di gayeexu gëmmentu mag mi comprendre dem xale xamut loolu xale xamut loolu kon yu mel noonu tey xale comme xàmmeewut yooyu yooyu faw nga yaatu dan di ko muñal soo ko deful rek mën ngaa def naka sudut noonu moo xam ci jàngale bi xale bi mën naa ñëw mokkalul wala yu demee noonu fekk yow da ngaa mer te ci wàllu yar sax dañuy wax ni kuy dóor waroo mer yarkat yépp yi nañ seetlu loolu saa boo meree nga dóor rek boo sàggantul nga gaañ parce que doo amati sago ndax mer moom day yëngal say sidib bokk na ci fukkeel ak juróom-ñaar mooy tadribu tifla ala taati munzu sigar mooy tamal xale bi jaamu yàlla bu dee ku mën a dem jàkka ja la fajar booy dem léeg-léeg nga yóbbaale ko waxuma la chaque jour na nga yàq nelawam comme ni ko ñenn ñiy defee gone goo xamante ni daanaka ñetti at la am fajar booy dem jàkka nga yàq ay nelawam déedéet loolu moom bokkul ci sunna bàyyi ko mu nelaw mooy sunna ca moom moom moom foofu mu loolu mooy sunna am moom waaye bu fekkee da koo fekk mu yeewu wala yu demee noonu maa ngi fàttaliku am na jamono am na kenn ci suñu gone yi ah comme ñun dañuy tëdd léeg-léeg bis boobu dama tëddoon waxtu balaa tisbaar bi tisbaar jotee mu daal di ñëw fëgg papa julli jot na not nañ léegi bi ma yëgee affaire boobu yàlla xam ne ni keroog li tàbb ci sama xol ci kontaan te yàlla rek moo xam nu mu toll ndax xama xamatuma ban image laa mën a jox yëf yi booba loolu nit ki da ko war a tàggat ci ay njabootam ba ñu xam loola maanaam tadrib ko ci taa léeg-léeg mu lay gis ngay julli léeg-léeg nga gis ni yeewu na wala nga gis ni ah tey ci guddi gi dinaa la yee bu ko defee ñu naafi na genre yooyu bu subaa waay tee ñoo woor waay maag yow bu ko defee man maa lay paye ndogu ak xëdd gis nga genre yooyu donte sa doom la donte sa ndonga la yooyu nga di ko def di ko encouragé ci ay topp yàlla léeg-léeg it nag nga am fooy dem ànd ak moom bul ko xeeb gone la waaye gis nga gone yi matu ñoo xeeb de xale bi même bu fekkee juróom-ñaar fukk at la am nga am benn bis boo xam ne nga am koo bëgg a dimbali nga ànd ak moom bul wax dara nag foofu moom jërul ngay wax àndal ak moom ba àgg la na saa sa na la na la dégg gis rek ngay def nga yëkkati ah mbokk lii de moom dañoo ñëw pour dimbalee la ko rek ngir yàlla xanaa ñu ngi sàkku tuyaaba ndax jullit daa war a dimbalante ak mbokkum jullitam noppil xale bi amoo loo wax ak moom yow ñibbil rek gis nga yooyu ay technique la yoo xam ne boo koy jëfandikoo xale bi xale bi loolu da koy marqué da la ciy jéem a roy après yooyu tamit mooy tadrib ko ci ay taahaat ci woor yeeg jàng alquran ak zikr ak ila axirihi fukkeel beeg juróom-ñett mooy itaab waaye maa tax fii fi la itaab yedd wala xas ci misaal waaye nag na woyof xale kenn du ko kenn du ko def comme ni ñuy def mag ërtal ko gëtën ko mel ni sa waay kuy wax ak ku dem ba dikk waxal wàcce ko ba mu tolloog moom maanaam dimension bu kawe bi ngay jox mag bul ko bul ko def gone na oyof tuuti su ko defee gone gi am na ñoo xamante ni boo jëflanteeg ñoom noonu te xam la xam ni yow mii ku tàng nga wala ku mënoon a def lu gën a foor lii nga def la loola mën naa def ci ñoom jeexintal fukkeel beeg juróom-ñeent mooy istizaanu sabi ida axata shay'an min xuquqihim xale bi saa boo jëlee ak xam da nga ko war a laaj ndigal te loolu joxoon naa ko dafa nuroog tomb bale doonte bokkuñu loolu li ma jublu mooy ñu bari dañu ah kii xale la amul problème tey bu ñu doon fomp taabal ji ñu jékki-jékki gis benn mbubb rek xaaral ma fomp ko ci ah yaay baayam wala yaay yaayam wala wala wala yaay ab sëriñam moo tax nga am sañ-sañ boobu déedéet déedéet loolu jaaduwut de waa ku moom mbubb mi mu ne man maa ko moom nga ne ko ah waa may nga ma ndigal ma fomp ci lii mu ne waa mayu ma la ko nga delloowaat ko mbubbam loolu àq bu rëy la lu mat a bàyyi xel la kon loolu àq la ci gone gi da nga ko war a sàmmal su fekkente ne am na loo xam ni moom moo ko moom bul ko jël bi xëy na xaq parce que gone gi yaa ngi koy tamal kon ndekete ah nit daal boo ko yilifee lu neex jëlal ci moom déedéet du noonu waaye sàkkul ndigal soo sàkkoo ndigal mu jox la leneen may essayé def ko gone yi leneen ñu lekk ba noppi may seetlu kenn ah kan mooy ñëw moo raxasu ci fomp ci mbubbam waay fekk sax du ma ko def waaye nag ci buntu seetlu rek am loo xamante ni loolu ngay natt te gone ya su boobaa yu mel noonu yu mat di bàyyi xel la maanaam gone gi maa ko yilif rek taxul la neex nga def ci moom ah taxul la neex tamit nga daal di koy jël ci ay àqam fukkeel ñaar fukkeel bi mooy istisharatu sibyan fi ma yafhamunahu mooy gone gi nga di ko laaj xalaat ci loo xam ne nag comprendre na ko ah waaye yéen daara ji ni mu saltee nii moom jàkk ji ni mu ni mu mel nii yéen lu ngeen ci xalaat yéen yéen laaj gone gi maanaam ñun dañuy jàpp ni mag rek lañu war a diisool fekk déedéet sa doom da ngay diisoog moom sa doom da ngay diisoog moom même bu dee gone gis nga gone yi léeg-léeg léeg-léeg ñu wax lu mag dul xam de gone yi léeg-léeg nga laaj leen ñu wax lu mag dul xam léeg-léeg yow mi joññante xale yi léeg-léeg nga dégg nit wax loo xam ne da ngay jàpp ni lii moom mag waxu ko ah lii gone gi waxu ko léeg-léeg ñu waxal loo xam da nga naan déedéet léeg-léeg ñu nettali la loo xamante ni ci gone gi da nga naan lii gone gi waxu ko baa defu ko fekk uhun kay léeg-léeg nit nekk gone ba nag waaye am nam xel comme misaal ba leen joxoon nga xam ne damay nit fekk gone goo xam ma ngi ci ruq ba di ñaan kooku rek xam naa jotuma koo laaj lu mu doon wax waaye xam naa lam doon wax yitteel na ko torop kon gis nga yu mel noonu gone gi léeg-léeg am na xel su ko defee ah gis na loolu tajriba la maanaam du caagee ni sax conseiller nga soxla ci gone gi wala yooyu waaye da nga koy wax ngir nag naccal am xelam léeg nga wax gone yi ne leen waaw suuraa leen ci léegi mbalit mi léegi nuñ koy def bu ko defee yaa ngi leen di testé di leen xool amaana da ngay toog fee di leen déglu amaana da nga leen di bàyyi yooyu yu am solo la ngir tamal xale bi uslubu diisoo comme ni ma doon ko waxee suñu tafsir bi passé beneen bi ci des mooy iyaadatuhu indal indal marad gone gi bu feebaree bu dee yëg nga ko te xam ko da nga ko war a seeti maanaam ñun dañ jàpp loolu mag rek lañ ko war a defal ñun fi ne ñun fi ne ñu ngi seetante waaye est ce que bu ñu yëgee ne gone gi dafa feebar est ce que dañ jug dem di ko seeti gis nga loolu lu am solo la ci gone lu ko lu koy marqué la defe naa yéen a ngi fàttali xissa booba yonente bi salaam benn xale bu góor ab yahud juif doon liggéey ci moom feebar mu dem seeti ko ñëw andil ko ay ñama ñama ay affaire yooyu ba sawaay tey ngaa tuub dugg ci lislaam bala ngaa faatu